سارا لهور دن دون سو تنحند سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا لهور دن دون سو تنحند سرسارا لغات مزاد لي من بني ديمان أنسارا لله كل لدى أبار مكربة ملرت أدنى فيه أجمع منسارا tey dimanche ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars atum 2022 Euh, ñu ngi fii ci salob bi war jëm fi nga xam ne ni moom mooy gore euh, tey euh, fédération des écoles islamiques Touba Gare bu mag organiser benn sortie wala journée pédagogique boo xamante ni day ànd ak xale yi ñu dem def benn découverte ngir ñu xamal leen gore xamal leen également lan mooy jeexital yi nga xam ne fa lañ koy fekk ci biir gore loo tax gis nañu actuellement nii yegg si nañu Ndakaaru bi 6 heures du matin di jot actuellement ñu ngi ci biir salob bi wutali fi nga xam ne moom mooy Gorée ñu ànd ceeg ñi nga xam ne ñooy fédération des écoles islamiques Touba Gare bu mag muy élèves yi ak ñi nga xam ne ñooy jàngalkat yi alors ñu ngi jàkkaarloog jàngalkat yi ñu jox leen kàddu yi euh, ngir ñu def benn wërngel bu ndaw laata ñuy àgg fi nga xam ne ni moom mooy euh, biir euh, gore commençant par ki nga xam ne moom mooy voilà mën nañ ko tàmbali ak suñu doyen ki nga xam ne ni moom mooy monsieur Dame Khoule monsieur Dame ñu ngi lay nuyu bu baax le ziar tey yaa ngi ci salo bi war jëm gore ñu bëgg a xam say kàddu surtout ci li nga xam ne moom mooy euh, journée bi. Euh, journée bi de am na solo maanaam euh, mën nañ ko tuddee étude journée pédagogique la daal journée pédagogique la dafa mel ne élèves yi fi ñu jëm daan nañ ko jàng mais léegi dañuy dem pour étudier ko sur le terrain ñu teg ci seen bët am na solo lool daal journée pédagogique lay doon. wala ak ñun Baye Loum moom it di suñu doyen bokk ci journée pédagogique bi. Baye Loum ñu bëggoon a xam euh, sa mbégte vraiment ci bis bi ak say kàddu. asalaamaaleykum rahmatulah sëñ Imaam maa leen nuyu di nuyu élèves yi ak ustaas yi yëpp tey moom am nañ mbégte am nañ kontaan lool ndax li wax dëgg yàlla macha allah lii bokkoon ci liggéey bi daal bokkoon na lii avancé liggéey bi kontaan nañ ci lool wax dëgg yàlla di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñu yàgg koo def daal yàlla dafa ñu jàmm ak xéwal taw fee baax lii moom aadama lu am solo la tey moom bég naa lool lii moom. am na solo lool yàlla ñu yàlla dimbale jàppale ñu ne ba baax ba suñu liggéey bi daal fi ñu bëgg àgg mu jërëjëf waay. jërëjëf Baye Loum euh, également Abdou euh, moom yow bokk nga ñi nga xam ne yaay na njëkk unifié euh, def sorti ensemble vraiment tey ñu jaar ci yoon bi tey lan nga yëg nga ànd ak élèves yi ngir def benn découverte journée pédagogique boo xam ne day am ay asaar ci xale yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Adama ñu ngi lay nuyu di la siyaara di siyaare mbokk yëpp rawatina waa Ittihaadu Madaris di feeñe suñ contentement bu baax ci siyaar bi di wax ni wax dëgg yàlla départ bi moom alhamdulillah ndax teel nañu ñëw Dakar te bi ñu ñëwee tamit lépp yomb na alhamdulillah ñu ngi ci salub bi xale yi kontaan mag ñi kontaan péex mi neex lool ñuy ñaan ñu fekk ay at i at te di leen remercier yéen ñi yoroon kii bi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax. voilà ci beneen wet gi euh, kii mooy Ibrahima Ndiaye sama goro tabaarakallaa waaye day déconné Ibrahima ñu nuyu la yow it ziar la vraiment euh, nga miin Dakar lool tabaaraka yooyu nag ne ko miin Dakar lool macha allah alors bëgg nañu xam say kàddu ci bisu tey bii. Euh, ginnaaw ñu sant yàlla ñu di nuyu bépp jàngalekat bu nekk ci Itihad di nuyu élèves yi yëpp di sant yàlla baax nag yàlla mi xam ne mu ñu kàttan ba ñu agsi ci jàmm ak salaam. di rafetlu nag wax dëgg yàlla sorte bi wax dëgg yàlla lii lu am solo la xale day bañ bañeen rek si ko jàngaloon muy xëy ko wàcc waaye di ko wont bi di yenn nii day am solo lool hmm. ñuy nuyu ñëpp waaw di sant ñëpp jërëjëf jërëjëf euh, ci beneen wet gi euh, le le benjamin di tihaat <laughs> kooku mooy oustaz Abdoul Abdoulaye waa miin Dakar lool macha allah Abdoulaye ñu ngi lay nuyu vraiment tey journée pédagogique bi ci euh, Gorée fay kaddu Euh, bisimilah rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina wa sallam al imaam ñu ngi doole ziar bu baax di leen nuyu euh, di am contentement bu baax ci ziar bi di nuyu euh, sa cameraman Seydina Omar di wax ne daal am nañ daal contentement bu baax daal waaw comme d'habitude daal lii daal macha allah neex na lool waaw instant yi daal xalaat yi gën na leer waaw ndax dañoo sensé air macha allah. aywa le doyen Oustaz Moustapha Kane moo doyen. Oustaz tey ñu ngi ci salon bi war a jëm Gorée euh, mu nekk benn journée pédagogique boo xam ne Ittihad moo ko organisé euh, say kàddu ci bis bi ak mbég mi. Euh, merci Imam euh, on a quitté Touba depuis 3 heures du matin ñu ngi fii à Dakar surtout jëm côté Gorée ni ko waxee sànq bon pour une visite boo xam ne am vraiment mbégte trop pour ak suñu élèves yi ñuy jàngal ci classe yi. bu defee ñoom benn visite boo xam ne que c'est pédagogique alors xam nga jàng du rek ci classe yi kese quoi mais parfois xale war na génn li muy jàng ci classe yi mu gis ko nag ak bëtam quoi kon vraiment lu am solo la loo xam ne que daal euh, c'est salué on est très heureux vraiment ànd ak suñuy élèves suñuy collègues pour def une visite boo xam ne que c'est formidable macha allah. macha allah jërëjëf Oustaz na ma am quelques élèves ah pourquoi pas na nañu am quelques élèves ci élève yi bon maa ngi jàkkaarloog benn élève nii soxna si na nga def. ça va bien yow ak fan nga jógee. Mate Diaw laa maa ngi jugee bu baax ngi ban maa ngi classe quatrième. waaw. tey bëgg xam say euh, sa kàddu ci bis bi ak euh, noo ko noo ko centuré. xanaa bis bi moom am na solo trop ndax liy baax na ñu génn ndax di gis li ñu xamul woon li ñuy jàng te duñu ko gis ñuy génn pour xam pour xam ci dara sax doy na. voilà euh, mu nekk classe su fi nga xam ne ni moom mooy classe de classe de de quatrième ou bien maa ngi euh, mademoiselle Ndiaye également ci wet gi benn collègue am mademoiselle Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la jaay yow nga bokk ci jàngalekat yi euh, tey ñu ngi nii ci salo bi war a jëm euh, gore alors sa mbégte ak bis bi également. waaw may nuyu ñëpp di rafetlu affaire bi parce que sorti moom lu baax la si élèves yi parce que day yokk seen connaissance ci seen wàllu njàng. macha allah ni mu débuté daal moom neex na moom ñuy ñaan mu continuer nii ba keroog ñuy terminer sortie bi. ok léegi euh, euh, Cheikhul Khadim ñi ngi jëm Gorée alors lan mooy sa mbégte sa mbégte ci bis bi. ah bis tey dañ ciy bég lool lool lool di ko rafetlu ndax ah, ñëw fii ñëw fii ngir ah, sàkku xam-xam. lu baax a baax la ndax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam day wax naan utlubul xilma walaw bi siini xam nga. soxna si na nga def euh, yow. tey yaa ngi Gorée. c'est la première ñëw Gorée. nu ko wax dëgg fa neex yàlla vraiment am kontaan naa parce que li ñu def dafa nekk lu nga xamante ne dafa mënta ñàkk ci vie parce que bëri na ay kii yoo nga xam ne ay réew yoo nga xam ne dañuy jël dañuy jël avion pour ñëw daal di vérifier li nga xamante ne moom mooy euh, kii gore parce que bëri na histoire moom wax dëgg fa neex yàlla bu fàtte ni suñu maam yi fële leen doon jàpp di leen def yoo xam ne mooy loolu loolu moo war mën a tax nag ñu war vérifier dëggantaan lan mooy Gorée xool yëpp dañ ko war a xam daal wax fa neex yàlla. ñu ngi ci biir salo euh, bi jëm euh, Gorée taxaw kenn ci ñi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi sang bi ginnaaw bu ñu loon nuyoo ziar la euh, tey ñu ne ci biir salo bi bëgg nañu xam bu njëkk salo bi ak profondeur fi nga xam ne ni moom mooy kii bi également distance su ak fi nga xam ne moom mooy Dakar. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di ziar leen dalal jàmm leen wax bienvenue à bord daanaka distance bi 3 kilomètres 500 la nag waaw sur une distance 3 kilomètres 500 ñu ngi koy daw 20 à 25 minutes waaw. waaw euh, euh, tey ci distance bi ak euh, souvent ñi nga xam ne noonu noonu lay demee ndax mën nañ fi faytu parfois ay jafe-jafe wala yu mel noonu wala. bon daanaka loolu moom wax dëgg yàlla bariwul nag franchement parle xëy na bu daan am bu njëkk ba la waaw ndax léegi boo dee xool navigation avancé na. waaw te léegi moyens yi tamit waaw li ñuy li ñuy soytoog yooyu avancé na ba nga xamante ni yu ci yu ni yu ni mel waaw duñ ko fi gis daal dëgg yàlla moom waaw. ku bëggoon a xam euh, kuy ñëw gore tey seen heure yi nga xam ni ci moom ngeen di def va et vient bi ak fen euh, heure yi nga xam ne ci ngeen di wàcc. waaw daanaka rotation yi nag mi ngi tàmbalee bu fekkente ni ci biir semaine bi la mi ngi tàmbalee lu ko dalee 6 heures et quart dernière chaloupe mi ngi jóge Dakar 22h30 yegg si fii 23h kon 23h30 chaloupe bi day arrêté waaw mais bokkut ak nag samedi vendredi samedi dimanche parce que yooyu de am ay horaires supplémentaires au delà de 22h. Hmm. Euh, benn question bi mooy bu dee élèves yi ak euh, ñu dul élèves yi tey lan mooy seen différence. maanaam. ci wàllu tarif yi quoi tarif bi euh, réduction ay élèves lañ. les élèves dañuy ñëw ngir jàng si ngir gëstu voilà bokkut ak nag majeur. boo xamante ni dafay ñëw pour yeneen i mbir. لهور دون سو تنحند سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا لهور دون سو تنحند سرسارا حمدي Euh, fii ñu taxaw moom mooy mémoral de gore tey bu ñuy wax ne gore am na xol mën nañu fii mooy xol bi bu njëkk na dañ leen di présenter Gorée euh, wax leen également solo si mu am moom gore gore wala île de Gorée euh, baatu île mooy li wolof di tudde ab dun dun mooy bërëb boo xam ne ndox da koo wër kàpp amul benn bunt fii gaal wala bato moo la fi dugal moo la fi génne oto du fi daw ndax bu ñu xoolee rëyul ci ab guddaay ak ci yaatuwaay moom Gorée mu nekk nag dëkk bu yàgg dëgg la senegal moo ko mag waaye tubaab yi ñoom ñoo ko découvrir muy portugais yi bu ñu xoolee gore dañuy wax ni bokk na ci dix-neuvième commune d'arrondissement bu Dakar moom gore ñi nga xam ne ñoom benn navigateur bu ñuy wax Denis Diaz moom moo ko découvrir at mi nag dañ ci werante parce que am na ñu wax ci atum 1444 mais am na it ñu wax beneen date bien vrai que boobu. ñu bari jàpp nañ ko ne ci la ñu gore amoon na benn xëccoo bu dox diggante ndax bu ñu xoolee du français rek français yi rek ñoom ñoom nekkoon fii Sénégal di lëmbe mais am na yeneen xeeti tubaab yoo xam ne nekkoon nañu fi ndax portugais yi ñoo ko découvrir fii 1444 ba 1588 ñi nga xam ne ñoom ñooy néerlandais yi nekk fii ci atum 1588 ba 1629 ginnaaw portugais dañ fi ñëwaat ci 1600 ñoom portugais yi 29 lañ fi ñëwaat irlandais yi tamit ñëwaat fi 1529 ba 1664 ginnaaw bi ci la anglais yi ñëw ndax bu ñu xoolee sax boo demee ci mboorum Sénégal da gis ne anglais yi ak tubaab bi xeex nañu ba. ni nga xam noonu la anglais yi notee tubaab bi ba nangu Gorée ak fi nga xam ne moom mooy Saint-Louis du Sénégal mais boo demee ci atum 1677 français yi dañu dël si waat ñoom dal di teg yoxo ci euh, gore ba atum 1758 1758 boobu nag waa Britanniques yi ñëwaat muy anglais yi ba 1763 en 1700 63 ñi nga xam ne ni ñoom ñooy euh, français yi dellusiwaat yilif ko moom ko ba 1779 yii ñuy wax yëpp nag day nekk ay xeex yoo xam ne mooy dox seen diggante ba benn wàll gi not moroom ji mën a yilif dëkk bi. 1783 euh, français yi dellusi fi nag moom ko ba ci atum 1960 bi ñu amee indépendance. Sénégal yilif ko ba sunu jooni yàlla tey jii gore ñu dugal ko ci moomeelu adduna bi muy li ñu tudde UNESCO nga xam ne dafa dañ koy wax li ñu tudde maanaam patrimoine maanaam li nga xam ne adduna bi léegi du Sénégal mais adduna bi ñëpp ko bokk ndax fii ñu nekk tey nit mi ngi daggee bii partout dans le monde di ñëw fii di ko visite ndax dafa am li ñuy tuddee jeexital UNESCO bépp barab wala lépp lu mu jël def ko UNESCO maanaam def ko patrimoine rek loolu day wane ne loolu dafa universel lu universel nag mooy loo xam ne àddina bi ñëpp ñoom ñoo koy jëfandikoo comme gis ngeen bu yàggul rek ñi ngi koy wax ci suñu plat national muy ceebu jën ñu def ko mu nekk li nga xam ne moom mooy euh, patrimoine nga xam ne léegi day nekk lu universel loo xam ne àddina bi ñëpp koy jëfandikoo kon loolu mooy cosaanu euh, Île de Gorée ñu jàpp ne kon portugais yi. ñoom ñoo fi euh, njëkk a ñëw. voilà lii ngeen di gis ni euh, monument la monument la boo xam ne président de la république euh, abdu Diouf moom moo ko inauguré li muy représenté nag daf lay jox dafay jox forme bateau comme bu gaal gu këpp lay misaal boo koy xool ni day misaal ne gaal gu këpp la li muy symboliser gaal gu këpp gi moo di ne sunu maam ñi nga xam ne nasaraan bi da leen daan jàpp jaam di yóbbu. askanu Afrique bu bari ñoo suux ci géej gi am na ñoo xam ne egg nañ am na ñoo xam ne ci biir ndox mi lañ des parce que jàpp leen jaam da leen lu jaral ñoom ñuy dugg ci ndox mi di xaru ñi ci feebar daawuñu leen faj dañ leen di jël rek sànni ci ndox mi noonu maanaam ay milliers milliers ay junniy junniy euh, africain ñoo des ci biir géej gi moo tax monument bi ñu misaal ko ci gaal gu dëpp voilà kon loolu lay loolu lay symboliser. mémorial de Gorée hmm? waaw mémorial de gore lii mooy wenn toju di wax ni gaal gi bu daara day toj lii mooy wenn toju gis nga xam nga lii moom gaal la waaw boo xoolee nii forme bi xam nga ak gaal guñ taxawal mm-hmm. waa na genn gaal mooy lii mm-hmm. voilà gaal gu këpp mm-hmm. loolu lay loolu lay symboliser voilà lii ngeen di gis nii euh, monument la monument la boo xam ne président de la république euh, Abdou Diouf moom moo ko inauguré li muy représenté nag daf lay jox dafay jox forme bateau comme bu gaal gu këpp lay misaal boo koy xool ni day misaal ne gaal gu këpp la li muy symboliser gaal gu këpp gi moo di ne sunu maam ñi nga xam ne nasaraan bi da leen daan jàpp jaam di yóbbu askanu Afrique bu bari ñoo suux ci géej gi am na ñoo xam ne egg nañ am na ñoo xam ne ci biir ndox mi lañ des parce que jàpp leen jaam dañ leen jaral ñoom ñuy dugg ci ndox mi di xaru ñi ci feebar daawuñu leen faj dañ leen di jël rek sànni ci ndox mi noonu maanaam ay milliers milliers ay junniy junni euh, africain ñoo des ci biir géej gi moo tax monument bi ñu misaal ko ci gaal gu dëpp voilà kon loolu lay loolu lay symboliser. Hmm? mémorial de Gorée waa mémorial de gore lii mooy wenn toj bi. Hmm, voilà dañu wax ni gaal gi bu daa day toj. Hmm, lii mooy wenn tojut gis nga xam nga lii moom gaal la boo xoolee ni forme bi xam nga ak gaal guñ taxawal waa mm-hmm. gen genn gaal mooy lii mm-hmm. voilà gaal gu këpp mm-hmm. loolu lay loolu lay symboliser bi fii ngeen ñëw nii quartier bi quartier bi moo tudd kastel bi ngeen di dégg Mam Kumba Castel Mam Kumba mooy rabu gore bi bon kastel anglais yi ñoo ko tuddee woon place bi Castel si anglais mooy sato parce que li ngeen yéeg ni si kaw yéen a ngi yéeg trente six mètres virgule cinquante deux centimètres mooy hauteur bi ngeen nekk ni si kaw li ngeen tiimee géej gi bon waaw mooy hauteur bi nii moo waral ñu woowee ko Castel bon Gorée superficie bi guddaayi Gorée mi ngi nekk neuf cent mètres mooy guddaay bi fi ngeen jógee place ba si les noms de Dieu bi neuf cent mètres la yaatuwaay bi mi ngi nekk trois cent mètres bon Gorée portugais yi ñoo fi njëkk a ñëw seen fort bi moo nekk fii si ginnaaw après portugais yi hollandais yi après hollandais yi français yi fii ngeen nekk nii si suuf ay kër la fii militaires yi ñoo fi dëkkoon parce que boobu France dañ ko dañ ko diviser en deux dafa am groupe général de Gaulle ak groupe maréchal Pétain maréchal Pétain moom moo àndoon ak yi général de Gaulle ànd ak anglais parce que kanu bi boo gisee ñu defar ko kanu bi moo daan contrôle gore Dakar et Rufisque parce que portu Dakar bi dafa am ay réew ñu ngi fi seen por bi ñu ngi Dakar fii ay mol un mool deux mool trois yooyu boobu Pétain moo defar kanu bi mu ngi ko defaree France fu ñuy wax Angoulême ñu ngi ko defar mille neuf cent ñu ngi ko indi Gorée ñu ngi ko indi gore ak bateau am pièce détachée dañ ko indi gore mille Gorée 1906 dañ ko indi gore montage bi un an la ba mille 1907 mu door a pare bateau bu mos a jaar fi dugg si port bi kanu bi moo ko daan contrôle ba xam fan la jógee ak lan lay def fii bon kanu bi mi ngi pesé six mille cinq cent quarante deux tonnes de ferraille poids bi yëpp. bon bu tiirawaan dafa daan dem porté des quatorze kilomètres da daan dem ba romb Tëngéej deux kilomètres parce que Gorée ba Tëngéej mi ngi nekk douze kilomètres porté bi quatorze kilomètres la diamètre bi comme gémmiñ kanu bi mi ngi nekk deux cent quarante millimètres de diamètre kanu bi da daan tourné mi ngi doon def rotation mi ngi doon tourné trois cent soixante degrés moom la daan tourné benn yoon la mos a tiré mu ngi de woon benn bateau anglais le 23 septembre 1940 mooy bu ngeen di booy bu ngeen di dugg Gorée gis ngeen balise brousse affaire brousse bi taxaw si ndox bi noonu mooy fi salu bi di wër noonu bato bi mu tiré moo nekk foofu benn bato anglais bu tudd Tacoma bato bi dafa defoon dund ravitaillement la defoon mais bu ñuy tiré bato bi loo foogoon na général de Gaulle moo nekk si biir parce que moom xam nga juboo woon ak de Gaulle mook Allemagne ñoo juboo woon de Gaulle juboo anglais yi. bon bu ngeen xoolee ndomburu ferraille bi français yi indi gore mu ngi toll si trente six mille six cent quarante deux tonnes de. bon alors yéen gis kër bi ah fii moo nekkoon fort portugais xam ga gore portugais yi ñoo fi njëkk a ñëw portugais yi ñoo njëkk a ñëw Gorée ku ñuy wax Danil Dias ñoom ñoo njëkk a samp fii si tubaab yi seen kër fii ñu ngi ñëw gore mille quatre cent quarante quatre mooy première fort tubaab fii gore bon bu ngeen xoolee gis ngeen porte bu weex bi gis ngeen affaire bu weex bi nii porte bi porte bi mooy porte aller retour bu ngeen demee maison des esclaves da ngeen gis porte aller sans retour fu ñu daan jaarale suñu maam yi yéegal leen si gaal yi yóbbu leen ñu dem te du ñëwaat mooy porte aller sans retour bu ngeen demee maison da ngeen ko gis bii nag mooy aller et retour bii moo ñuy wan na léegi gaa yaa ngi tukki di dem Amérique di ñëw di dem Europe di ñëw comprendre ngeen bii mooy symbolique retour bi français yi ñoo ko fi def porte aller et les retours aller sans retour moo nekk maison des esclaves. kër bu weex bi fii moo nekkoon palais gouverneur gore bi gouverneur tubaab bi nekkoon fii mi ngi tuddoon gouverneur Roum mais léegi moom lañ tuddee palais président Senghor mooy kër bi waaye moo juuma gore bi moo nekk nii si suuf gis nga juuma bi si suuf ni sa kanam foofu na. jumaa bi xoolal jumaa baa ngi ni si suuf xoolal fii si suuf gisoo ko noonu fële si suuf waaw foofu mooy jumaa Gorée bi léegi musée historique moo nekk fële yaa ngi gis kër bu ron ba lay mujjee mooy musée historique après bi ngeen génnee maison des esclaves da ngeen di dem foofu statue la libération bi foofu la nekk. asalaamaaleykum barakaatu ñu ngi leen di nuyu euh, mu mel ni kon euh, fi ñu nekk nii fi ñu nekk nii mooy maison d'esclave maanaam mooy këru këru jaam yi loolu la tuddee këru jaam yi suñu maam yi xam ngeen tubaab bi dafa jàpp suñu maam yi ay jaam fii lañ leen doon denc bu ñu musaan jàpp bu pare boo duggee ci biir am na fi ay genre yu mel ni ay genre yu ngunu nga xam ne fa la ñuy dugal suñu maam yi nga xam ne benn ngunu bu war a mën a jël vingt dañ ciy def presque quatre-vingt cent nga xam ne mel ni comme rek ay mburu comme ni def mburu noonu ci euh, comment dire ci chariot bi noonu lay mel quand même euh, bu ko am na ci biir tamit ci biir fii lu ñu tuddee porte aller sans retour mooy buntu boo xam ne da ngay dem doo dellu siwaat mooy bu jàppee suñu maam yi bu ko jàppee jaam bu duggee ci porte bi directement day dem moom mu du ñëwaat ku dugg moom say dem nga da ngay dem France wala nga dem bon seen yooyu mais doo ñëwaat fii. boo demee léegi nag si la fan yi dañuy liggéeyloo di la nga nekk jaam daal nga ne esclave du leen liggéeyloo foofu quand même ci biir aussi am na foo xam ne dañeen bu ñu mësaan dugal suñu may foofu dañeen di jox man nga ni euh, ay saaru ñànkatang pour ñu mën a am doole pour mën a liggéey bu ñu nee foofu bu fekkee da nga nekk ponk moom doole nag léegi boo bëree doole ñu bëgg la néewal doole dañ lay comment dirais jox ay benn kopp somme bi par semaine pour nga mën a néew doole pour que ñu mën la def la ñu bëgg def loo kon daal ci tënk rek fii ngeen nekk ci biir pour le pour temps bi la mais boo duggoon ci biir di nga fekk fii loolu quand lu bari bari ay néeg yu xat yu ndaw ñu fi doon campé suñu maam yi euh, bon euh, ci façon bu doy waar di leen. dóor di la torturer def façon métal bu nekk également wax naa ko sànq am na ci li ñuy wax porte à l'essence retour boo xam boo duggee dootoo génnaat fa nga teegee dem ci réewu tubaab bi ñu lay def ay jaam-jaam kon daal donc mooy mooy fi ñu taxaw nii sarab lahoori dan doona soo tin hinda sar